xam ngeen ni euh, fi si darul Minan yéen ngi deg ci si fo leen mën di tollu rek doon nak euh, kurelu ku magginga gi ci bir ak kurel gu mag gi nga xamanteni mo ngi si penc mi seigne Mamour fi mom kenn mënu ka netali lu rek nit da ci tek se beut sen special jeugul mourid tay xam ngeen ni euh, fi lañ ko defé ci darul minan keur Cheikh mohammedul Mountakha ci bisu zikar bi mu wote di ñaan yalla mu yagg fi lol te ak wér te di ñaanal sa ñam di Fall moom Serigne Modou Mbend Fall momit mu yagg fi lol te ak Mamour jërëjëf sëñ Alioune Badara di la jaajëfal bu baax di jaajëfal mboolem euh, kilifa yi nga xamante ne gis nga bi nga xam ne Cheikh Mouhamadou Mountakha sàkku na lii ci njabootu maam Cheikh Ibrahima Fall kenn a nekk rek da nga faa bàyyi ko ñëw ci bis bii tey àllarba ji la sëriñ bi waxoon loolu lañ jëfee euh, tàmbali nañ nag sikkar si ndax sëriñ bi waxoon na ne bu 16h jotee ci ngoon buñ ci teg benn minute waaye ba 16 jotee rek ci lañ daal koy samp defe naa ne koy wàccee mooy bi ko te loolu lañ fas yéene incha huit seize heures ci ngoon sëriñ bi waxaa ne buñ ci tegaat benn minute bu sëñ bi waxee ne waxtu wuñ ko war a wàcc jot na waaye signal xam nga ne boobaak léegi itam gis nga ne waxuma njabootu maam Cheikh Ibrahima Fall waaye wëllëre yi ak kilifa yi ak kilifa yi sant Mbàkke tey foo sànn mbatt mu takk gis nga sëñ Moussa Nawel léegi muy dugg si gis nga mboolem njabootu sëñ Tuubaa Seexul Xaddim kenn manqué am na ci ñoo xamante ne bii ngi toog dund si kër si ndax xam na ne télévision yëpp ñu ngi Euh, bëgg a barkeelu ci jëf jure ji nga xam ne Cheikh Mouhamadou Mountakha euh, def na ko euh, lépp rek ex wane nag ak feeñal liggéey maam Cheikh Ibrahima Fall Baye Mouride ndax Cheikh Ibrahima waxoon ne yoon wi sëñ Bamba woote maay royukaay bi ku ma jéggi weesu nga digg ko assuur maa ngi loolu la sëñ Mountakha taxaw ngir feeñal ko ndax turu yàlla bu ko sàkkoo ba pare na Cheikh Ibrahima Fall da ci am tër bu yaatu ndax lam sàkku woon mooy dafa wax ne dama bëgg a sant sunu borom ci boole gi mu wër sëñ Touba ma bëgg ñu santale ma ko ak turu yàlla waaye dama ko njukkale maam Cheikh Ibrahima Fall Baye Mouride gis nga boobaak léegi tur waa ngi ci njabootu Cheikh Rafal gépp ngi toog mboolem Cheikh yëpp ngi toog ñu ngi koy yëkkati te incha allahu nii lañ ko fas yéene fanaane ba ci yàlla andee kon noo ngi ñaan bu baax a baax di ñaan Cheikh Mouhamadou Mountakha yàgg fi ci barke tur wi sëriñ Amdi Fall moom sëriñ Modou Fall Mbenda mi nga xam ne moom la sëriñ bi jox ndigal bi mu yabal ak njabootam te kenn manquéwul ñëpp ñëw nañ dafa tàmbale kër Cheikh nga amul ku manqué ku des Cheikh yëpp ñëw nañ wëllëre ñëw nañ waaye nag dañ yi nag léeg-léeg nga daje koo xam ne da ngay xam ne fële lay wuyoo waaye seex roxal lañ mënta mun ni ma yeew ci nagi ndenkaan ci gétt jàmbur yi seex ro ne su ma ko yeewoon gétt raaf ndax sama yëkk yaa ci gétt gaa bëngeelu ñooñu tey boo doxee ci biir gis leen ci kenn ku ci nekk ma nga laxasaay man gis naa ñooñ sax njabootu sëñ Tuubaa seexul xadim kenn dox si digg waaye tey seen dara ngi seen digg ña ca sàmba waaw ña nga ca sikkar say wër Cheikh Ibrahima Fall ci boppam moom la sëñ Touba joxañ murit yi ngir ñu war te lii firnde la ci sëñ Aliou Badara sëñ Muntaxa taxaw na mu ngi feeñal loolu ndax waxoon na ne dama bëgg turu yàlla wi ñu tudd ko waaye waaye waaye ndax damaa xam cër bi maam Cheikh Ibrahima Fall am ci tur bi te tey loolu feeñ na. te sëñ Mamour jërëjëf yamul si wax li ni mel waaye daa génn toog jàkkaarloo kuréel gi mbokk yi ni ngeen koy gisee nii si image yi Cheikh Mouhamadul Mountakha ci taar bi ci mbaax gi ci wilaya gi macha allah yàlla ko sunu borom gën a yàggal xam ngeen ni mu ngi nii toog jàkkaarloo kuréel gi ñuy yëkkati euh, turu yàlla wi mu koy dund kon ni ko waa kër maam Cheikh Fall di dundee. waaye kon ni ko mboolem mbokk julli di dundee ni nga ko waxee fépp rek si àdduna bi ndax nag ñëpp a ngi koy def en direct di ko dund waaye sëñ Mamour li gën a yéeme ni ñu koy dundalee fii ci biir réew mi moom lañ koy dundalee fépp si biti réew waa France ñu koy dundal di ziar bu baax Serigne Cheikh Fall Khady Gueye waa ñu koy dundal di ziar bu baax Serigne Manel Fall waa Italie waa Espagne waa Portugal maanaam waa Turquie bàyyiwuñ benn kuréel ñu ngi koy dundal fépp si biir àdduna bi ndax nag sëñ Abdoulaye moo waxoon fépp waay nekk. doxal ni mu waree jàppal ni sa foofee def nañ ko muy sëg Touba kon nag fu ñu mën di nekk rek tey wéyee ndigal di bàyyi na ni ñu ngi si bi di ah, am na saa lu xew. mooy am na ñoom dañoo jël eh, waa Dayratu Abrar di Club House di ay jàmbaar lool di ay jëfkat. kilifa yu bëree bëree bëri bokk ci biir mbooloo mi sëñ Manel fi teewal moom États-Unis la bàyyi ko fële ca Washington. Euh, ñëw na barki démb ci guddi ngir fekk si turu yàlla bi bëri na ñoo xam ni ñii Barcelone lañ bàyyi ko ñii Italie ñii France ngir ñëw fekk si jëf ju ji nga xam ne Cheikh am ba léegi gulet lañ a wax dañu dégg ko. waaw waaw musta am nag ndax itam wax dëgg euh, ñun day man de maa ngi fàttaliku fekke wu ma waaye 1963 koro ba jumaa ji yeggee sëñ Fallou ne ko xam soro bi nu ma ko tuddee ñëpp ku ne xel xel lu ne ñu xalaat ko mu ne sama baay Cheikh Ibrahima Fall ngi nii man da wax dëgg fekkoo loola waaye lii ma mos moom nuru na ma la ma mag ña waxoon dafay mel dafa feelu Cheikh Mamadou Fall ci jëf jooju nga xam ne sorol bii ci kaw Lamp Fall bépp ko seen mu tudd ko maam Cheikh Ibrahima Fall jëf ji tam ci yàlla yi àdduna dootu yàgg mukk bañ fàtte ko ndax jëf ju ne fàng la loo xamante ne bi yoonu mu gépp nga koy dund waaye lislaam gépp nga koy dund njabootu Sëñ Tuubaa gépp nga koy dund nga koy dund tey ndax site internet yi télévision yi ñëpp nga koy def en direct ñuy samp tur yàlla yoo xam ne te tur wi nag la ma wax de amul daray folklore amul daray caaxaan tur wu wér dañu tudd laa ilaaha illallaah joo xamante ne bii ñëpp ñi ca kaw dañ koy dégg ñu ca suuf mën koo dégg ñëpp mën da ci barkeel loolu la Cheikh yàlla na fi yàgg loolu te ànd ak wér ànd ak jëwriñ bi sëriñ Abdou Fall moom sëriñ Modou Mbenda mbokk yi kon ñu dox ko incha allah fas yéene kaa wéyalee nii ba suba si waxtu wi neex dem neex na suñu borom mbokk yi kon ànd ànd ak teew teewlu Zikrula wanalee leen ak kilifa yi jëlal leen yenn si ay interview te dellu siwaat ñu ngi leen di sant bu baax a baax di leen gërëm. bis la boo xam ne benn bés bu ko féete kaw ci yoonu mbon yi du leexi ci lislaam sax amut ndax bés boo xam ne xalifa général des mourides Cheikh Modou Mountakha yal na ko fi sun borom bàyyi moo jàpp bés bi ngir ñu njukkale ko Cheikh Ibra Fall di tudd yàlla waxtu ba waxtu wa dellu siwaat ëllëg loolu mës la am ba jamono sosoo ba tey loolu mës la am te Serigne Touba nee na fu kullu man saalani fa lii jawaab xable wadaatu jaaduuru ahlul kitaab baat bu ne lu màgg màgg baatu laa ilaaha illallaah moo la ëpp doole gën laa ko we Serigne Touba nee na ku ko weddi demal ca la jëkk wala sikrullaahi akbaru wallaahu yahlamu maa tasnahoona kon bis bi bisu paju aajo la bisam ngërëm la. di bésu Cheikh Ibrahima Fall ñu defe ko ci Touba fi ci Darul Minan di dëkk bo xamne keur go xaye seigne Touba ko sancoon rafaatale ko Cheikh mamadou bassir tay domam ji nek fi di khalifa seigne Touba wote bésub Cheikh ibrahima kon Mbàkke duñ man lu dul sant ko ak ñaanal ko ndax bés bi moom mooy bésu faju aajo ci saayir ak ci baatin kon jërëgeen jëf jërëgeen jëf jërëgeen jëf jërëgeen jëf ñaan suñu borom yàggal la fi lool te nga ànd ak wér mbay mbay sëñ Muntaxa nag daa yëg ca yëgukaay ba moo tax mu delloo batt ca ca ndaa la maanaam tur wi mboolem li bàyyi ko ci sunu borom jëm si ci jaam ñi moo ci gën a màgg tur yàlla mooy li gën a màgg loo xam ne leneen lu dul moom rek mu ngi ci suufam loolee gën a màgg sëriñ bi da daa yëkkati ki gën a màgg ci moom muy Cheikh Ibrahima Mouride ma teg ko ci loxoom nga xam ne foo dégg tur yàlla sam xel dem ci Cheikh moo tax bi sëriñ bi di santu la moom daa wax ne nañ tudd turi bi te njukkale ko Cheikh Ibra loole nag war naa dal xelum képp ko yaakaar Cheikh Ibra war naa sedd xolub ku yaakaar Cheikh Ibra waaye war naa doon ak laxasaay gu la soññiwaat ndax dégg naa ci sëñ Mamour mi wax ne sëñ Mountakha daa waxoon ne Baye Fall bu dëggal bu ne moo ma gënal sama bopp waaye bu ko dégg doog bàyyi mu jàll xoolal sëñ Muntaxa mooy kan xoolal ni mu fonkee boppam xoolal fi fi ko pastéefam yóbbu ngir xam boppam foofee mu toll nag foofee la yëgee ne Baye Fall bu dëggal moo ko gënal boppam kon Baye Fall bu dëggal mooy kan te nun ay Baye Fall lañu waaye kon li ñu dese suñu digganteeg yegg fofé moy dolé deugal rek wa kon yàlla ñu carafal gindil boppam wa ñi ngi sant ba sëñ mamad sëñ bi naka ngeen taxawoo bis bi di bis Zikroulah bi nga xam Cheikh Mouhamadou muntaha sant nako njabotuk sa mam Cheikh ibrahim Fall Baye. wa kay jërëjëf sëñ assalamu alaykum wa rahmatullahi taala wa barakatuh mbokk julit yi mbokk talib yi nga xam ñi ngi ñuy seetaan ñoo ngi leen di nuyu di leen siar ci fi ci kër Cheikh Mouhamadou muntaha Mbacké khalifa Serigne Touba. waaw mu mel ni nag euh, liggéey bii nga wax nga xam ni Jazboul Mouride sëriñ bi sëriñ du Modou Mbenda al mi nga xam ne moo toogee jotaay suñu maam Cheikh Ibra Fall ñi ngi koy nuyu te di ko siyaare te di ko ñaanal mu yàgg fi te ànd ak ku wér moo sangam bii ci biir di Cheikh Mouhamadul Mountakha Mbacké Bachir nga xam ni mooy ki nga xam ne moo xam wàccuwaay yu maam Cheikh Ibra Fall yayoo ba séddu ko ko ñu ciy sant suñu borom nag te di leen ñaanal ñoom ñaar ñoo ñu yàgg fi te ànd ak ku wér sëriñ mu mel ni li nga laaj dafay lu am solo daayira Jazbul Murid sëriñ bi daf leen doon liggéeyloo ci biir euh, ndigal li nga xam ne dafa rot jugee ci Cheikh Mamadou Mountakha mu wax ni dafa bëgg sant suñu boroom sant Cheikhul Khadim te jaare ko ci baatub laa ilaha illallah muhammadu rasulillahi te njukkale ko nag maam Cheikh Ibrahima Fall mi nga xam ne lawlaahu kenn du jariñ ci sëriñ Serigne Touba mu mel nag Cheikh Mamadou Mountakha ci la ñuy njëkk a ñëw dafay ki nga xam ni maanaam mooy xali Serigne bi nga xam ni mboolem yi nga xam ne ay njariñ yu nëbbutu woon sunu borom dafa def tawféex jaarale ko ci moom mu fas yéene leeralaat loolu ñëpp ba àdduna bépp man cee jariñu bokk na ci li nga xam ne defoon na ko fi ci jamono yee ñu weesu muy bisub xasida bi nga xam ni daf ko kenn ku ne xam ne xasida murit yëpp a ko maase fonk xam li muy jariñ waaye nag Cheikh Modou Mountakha soññaatoon ci murit yi ngir ñu dolli seen yitte ak seen pëste ba tax mu dajale woon mboolem nit ñi ñu taje fii ci tubaa yëkkati eh, jàng fi xasida yooyu gis nañ tam la mu jur muy jële fi mbas mi woon ci réew mi indiwaat naataange ci réew mi tey jii nag mu dellu siwaat ci lu mel noonu li mu dellu si mooy lan baatub laa ilaha illallah bi nga xam ni lu waay di wax ci aw làmmiñu mu ciy génn rek laa ilaha illallah mooy la ca gën loolee nag sunu borom moo ko njëkk wax ci alquran ndax dani wala zikrullahi akbaru kon si tudd baatub laa ilaha illallah mooy li gën a màgg ci luy génn ci gémmiñu doomu aadama loolee nag Sëriñ indiwaat ci leneen loo xam ne ñun dañ cay jaaraat gën a fonk bis bi ndax dafa wax ne amma dawaamu sikru fa huwa akbaru min kulli ma kaana al muridu yuksaru nee na maanaam baatub day mooy li nga xam ne li gën ci li ab murid di bari wax ne xat qultu zalika bila israari wala ubali bi zawil inkaari nee na loolu man maa wax man cheikhul xadim te xa maanaam moytuuma ci kenn ku jóg di ko weddi yëmu ca daca dacaa teg fa kullu man saala fali jawab xab la wala tijaaduloo ahlul kitab nee na ku ma ci laaj nag am réponse bu ma la ci tontu bu leer nañ nee na Euh, wala zikrullahi akbar gi nga xam ne moom la alxuraan andi won kon nag mu nekk loo xamante ni bii sëriñ bi àgg na ci ne képp koo xam ne gis ngeen ko muy génn ci gémmiñam baatub laa ilaha illallah bu leen ko jàppee am noon kooku yéen mëtu leen am noon loolu mooy falaatu haadoo man raaytum faahu yuxriju laa ilaha illallahu kon mbir la moo xamante ni bii sëriñ mun Muntaxa moo xam wàccuwaay bi xam dayo bi mu delloosiwaat ñu ci su ko defee nag loolu lim ñu war a jural mooy ñu góorgóorlu ci fas yéene taatan ni ko sëriñ bi bëggee maanam li ciy wàcc ci ay leer ba man koo jariñoo te nan lañ koy defee mooy tënku ci teggin ak ak akuk dal ak sago su sëkk loolu mooy li nga xam ne moom la ci sëriñ bi bëgg euh, sikar nag ñu xam ci maanaam xasiday sëriñ Tuubaa yi nga xam ni maanaam sëriñ bi wax na ni egg na ci wax ne karaamati xattu yët yi nee na man samay karaama mooy sama mbindum loxo xasida yooyu nag maa ngi leen di xamal li màgg-màgg bu fekkoon ab taal la maanaam mat mat ma koy xamb ba mu yànj bañ man ba ba yegg fi mu yegg loolee mooy baatub la ilaha illallah kon nañu ko maase xam ñun ñëpp dem na ba sëriñ bi wax naa fa kay fa yenn saa aw yu xaafidul wara zikrul lazi xalaqahum wa sawara ana nan la nit ki di sàggane ci maanaam tudd ki nga xam ne yow mooy ki bind te melal la ni nga mel teg ce ne li annahu bidaayatul wilaaya wa wa tarkuhu nihaayatul xawaaya maanaam baatub laa ilaaha illaa mooy tàmbalikaayu bépp wilaaya waaye nag sàggane ko woyefal ko fàtte ko nee na maanaam mooy daytalu mbewte maam fi nit ki mën a yem ci mbewte kon loolu daal bokk na ci li nga xam ne mën nañ ko cee tënk waaye nag ma ci soññ sama bopp di soñ soññ ñëpp ñu xam ne bis bii war nañ cee fasal Seex Muhammadul taxaa fasal ci jëwri ni maam Cheikh Ibrahima Fall muy sëñ am di Modou Mbenda séenu yàgg ak séenu wér te bis attan nañ ko ginnaaw ko Serigne Touba bu ñu ko ci fasee danañ ko am